L'Ergue TV, la lumière du Coran et de la Sunna. Abonnez-vous. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد bokki jullit yi maa ngi dénk sama bopp ragal yàlla di leen ko dénk jël nañ ci saxaaba bu ñuy wax Sakal ibn Xumayd al Absi radiyallahu anhu mu ne ñëwoon naa ci yonente bi sallallahu alayhi wa alihi wa ne ko yaa rasulallah xamal ma loo xam ne dinaa ci mën a muslu nee na mu téye ci sama loxo لما نغا واخني اللهم اني اعوذ بك من شر سمعي ومن شر بصري ومن شر لساني ومن شر قلبي ومن شر مني نغا مسلم يالا تي سا ايو دغ لي غي دغ نغا مسلو سوني بروم تام مسل لا تي ايو لي غي جيس مسل لا تي ايو لي غي واخ مسل لا تي ايو li ngay fas ci sab xol musal na ci ayu fi ngay wute banex muy sa pey ki sara hadith bi ne sahaba yi radiallahu anhum ñom dañ daan ñew ci yaronte bi sallallahu alayhi wa alihi sallam xéeru lool ci mu xamal leen lu leen di jariñ ci aduna ak lu leen di jariñ ci alakhirah ci hadis bi sahaba bi day wax ne ñew na ci yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko xamal ma loo xam ne dama ciy muslu ñaan goo xam ne dama ciy ñaan suñu boroomu musal ma di ci wéeru ci suñu boroom di ci làqu ci moom mu sàmm ma musal ma ci ayu àdduna ak ayu alaxira ay woo xam ne day jaare ci lu may dégg wala muy jaare ci lu may gis wala muy jaare ci lu may wax wala muy jaare ci lu may gëm di ko fas ci sama xol wala muy jaar ci loo xam ne dama cay doon wut ba neex yonente bi sallallahu wa sallam téye ci loxoom ngir wan ko yittewoo gu mu yittewoo li mu laaj ak yittewoo gu mu ko yittewoo moom ne ko na nga ñaan suñu boroom ñaan gi mooy ñaan ko mu musal la ci ayu dégg-dégg di ngay dégg lu ca ne ciw ay yàlla musal la ci maanaam sab dégg nga bañ cee mooy suñu borom tabaraka taala di ci déglu ay jëw di ci yëddu di ci déglu lu xaraam loolu nga ñaan suñu borom musal la ci loolu na nga muslu ci sa ayu gis sab gis na nga musal ñaan suñu borom mu musal la ci nga bañ boyal sab gis rek di xool loo xam ne suñu borom dafa digle woon ku ci damm sab gis waaye na nga muslu itam suñu borom mu musal la ci ayu làmmiñ ba doo ci wax wax joo xam ne lu lay jural bakkaar lay doon doo ci wax wax joo xam ne du nekk tudd yàlla wala mu nekk lu yàlla ci ay wax lu la mën amal njëriñ na nga ñaan suñu borom mu musal la ci ayu sab xol ba doo ci fas fas fas boo xam ne bu baaxut la doo ci ëmbal kenn ak coxar doo ci ëmbal kenn ak kiñaan doo ci ëmb itam bëgg ay mooy yàlla bëgg itam ñay mooy yàlla suñu borom musal la ci sab xol ba lool du ca nekk waaye na ko ñaan itam mu musal la ci sa ayu pay maanaam fi ngay faje sa bànneex ba doo ko faje ci fu daganul ci lu xaraam juróomi mbir yi nga xam ne jagleel na ko tudd ko ci cëri doomu aadama mu war cee muslu moom mooy cosaanu wépp ay wu doomu aadama di tàbbi rek ci yooyu lay jaare moo tax suñu borom tabaaraka ko taala ci alquran tegtal na doomu aadama jubale ko ci loo xam ne bu ci jaaree dana mujj ci ay woo xam ne waroon na koo bàyyi ko ci cër yooyu bu dee ab dégg la suñu borom nee na wàcce naa ci téere bi ne bu ngeen déggee foo xam ne dañ fay yëjji dañ fay doyadal aaya yàlla wala ñu fay doyadal sunna yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa di fa doyadal diine ngeen di ko dégg ci ay wax muy nit ñi wax lu leen neex loo xam ne dara amu ca tegtal dañuy bëgg rek lu neex nit ñi nee jotaay boobu bu leen fa toog bu dee lu ngeen doon déglu la na ngeen ko fay na ngeen ko arrêté nee na ba ba muy jàll ci jeneen wax joo xam ne bokkul ak lañ doon wax ndax nee na kat su ngeen toogee ci jotaay boo xam ne ñu nga fee wax loo xam ne luy sabote diina la luy doye dal diina la donte waxoo waaye yaa ngay déglu wala mu doon jumtukaay bu koy génne nga di ko seetaan nee na na nga yëg ne kat melokaanu naafeq mi ngi ci yow ña koy def moom mën naa am sax ñu wedd yàlla lañu te nag suñu boroom ëllëg naafeq yi ak ñi weddi yàlla ñépp lay boole ci biir jahannama inna allaha jaamiu almunafiqin walkaafirin fi jahannama jamia suñ boroom dellu wax ne su ngeen déggee waxi neen muy jëpp wax joo xam ne rek amul jariñ wax joo xam ne amul benn cëslaay rawatina ci diine diine moom lu ci waay di wax kenn amu ci sa waxi bopp lu ci waay di wax ci alquran lay jóge ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam la war a jóge loo ci wax te mënoo koo layal foofu rek wax jooju laxwu lay doon neen lay doon te da bu ngeen déggee wax ju mel noonu nag na ngeen ko dumóoyu bu leen ca werante na ngeen leen wax ne nun day li nu jëf nun lañ koy fay yéen li ngeen jëf yéen lañ koy fay nun daal jàmm lañ leen ëmbal te nag sàkk wu ñoo jotee koo xam ne ku réer la koo xam ne ku topp xam la bëgguñu seq ak moom ay coow ak xuloo te itam ngeen xam nun ñi ngeen di waxal wax joo xam ne diine ngeen koy tudde te amul wenn lay di ca juyoog nun nun day du ngeen ci nun lu dul lu baax te itam du ñu ak yéen lu mel ne ni ngeen di waxee yéen yéen day bu ngeen nangulee seen bopp di wax wax joo xam ne wax ju suufe la nun day dañu jéem a sori suñu bopp wax ju mel noonu du ñu dugg ci lu ñu xamut du ñu wax ci diine lu amalul dalil lu mel nonu ngeen di tontu ko xamne ma nga bëgg wax ak yeen ci diine lo xamne ci banne xam rek la koy tek bu dee walu ab gis suñu borom ne waxal ñu gëm yalla ñu goor ci benen aya ba ñu gëm yalla ñu jigéen ñoom ñépp nañuy damm seenu gis bu seen bat tege ci lo xamne lu haram la bu ci seen bat del wat te nañuy sam seen pey nañuy sam seen bop loolu kat mo gëna sel ci yeen Tengen ngeen xam ne nag suñu borom mboolem lu ngeen di def rek moom xam na gis boobu kon suñu borom dafa digle ñu di ko sajj di dam ab gis dëgg la nag am na yoo xam ne dagan nañu xool ko yenn tolluwaay yi lu mel ne kiy seede ak ki nga xam ne day liggéey masalan docteur bii faj mën naa am mu xool loo xam ne budul woon ak paj ma du sañ gis loola ki nga xamne itam day labat soxna man na am mu gis ca mom lo xamne budul won labat ga duñ ko may mu gis lola suñu borom nak xabal len ne mbolem lu ngeen di jëf na ngeen ci baye xel ne suñu borom mi ngi len di fuglu wa kana allah alaykum raqiba bu dee làmmiñ mom itam suñu borom digle na niñ ko wara jëfandiko neena yeen ñi gëm yalla ragal len yalla te ngeen di wax wax ju jup wax ju jup moy wax jo xamne ne ju dëppoog dëgg la jang wala tuddu yalla digle lu bax tere ab safan sakku xam-xam la biire sa mbokum julit xer ci lepp lo xamne rek lu jariñ la te lepp loy wax ci masalay diine itam nga gor lu ca ba mu don lo xamne ne lu wér la ca fa sa xam-xam toll bu ca sa xam-xam yegul nga laaj ne ko xam soobu yoon woo xam ne itam moo lay eggale ci looy wax lu nekk rawatina ci diine nga xam la cay dëkk bokk na ci wax ju jub jooju suñu boroom digg la ne dee leen ko wax mooy wax ju nooy ju lawet ci boo dee waxal nit ñi wax joo xam ne day ëmb ak laaye biir waaye wax joo xam ne day ëmb ak joxañ ci lépp loo xam ne lu baax la nga di ko wan doomu aadama yi fekkee loo xam la bu dee ab xol la suñu borom moom itam wax na noo koy sàmme sab xol nee na sab xol bu ci dugal looy gëm wala looy fas loo xam ne amoo ca xam-xam bu leer bu la ca toppandoo yóbbaale bu la ci dégg naa yóbbaale bu la ci lii laa fekkoon samay baay ak samay maam nekk ci déedéet ñooñu àdduna ngeen daje woon waaye du ngeen bokk bàmmeel moo tax borom bi ne wala taqfu maa laysa laka bihi ilmun inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula bul top bul gem bul fas lo xamne amo ci xam xam bu leer lula way di wax te munu la ca jox ay firnde yu leer lola lum don don deug yow lola engagé gula ndax amago aw lay woo ko toppe ndax te amo ci benn firnde mom mom nga top mom mi koy wax waye topatu deug ga bis bu ne la mala waxon kat dama waye genn na ca yow itam boo tudd da nga cee génn ndax doyloo ko rek moo taxoon nga dugg ci kon loo doy loo doyloo nit la mu lay wax ci diine na am dalil na am firnde bu leer borom bi kon tudd na fii ne dégg bi nga yor ak gis bi nga yor ak xol bi nga yor yooyu yëpp danañ la laaj noo ko jariñoo woon bu ëllëgee yow mal xiyam kon suñu borom day wax ne bul topp loo xam ne amoo ci xam-xam da ngay wóorliku lépp loo xam ne yaa ngi koy wax wala nga di ko def walla nga dégg ko na nga koy wóorliku jaadu na ci bépp jaam mu xam ne kat ëllëg lépp lu mu wax wala lu mu jëf ak lu mu doon jëfandikoo ay cëram danañ ko ko laaj bu ëllëgee ci kanamu boroomam kon nag kenn ku ne war ngaa waajal sa todd borom bi ne yowmal xiyaam kenn ku ne dana la laaj maasaa ajabtumul mursaliin lu ngeen tontu woon yonent yi yonent yi ma yebaloon ci yéen lan ngéen leen tontu woon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom jottali li muy jot lépp ba ne séedal leen ne jottali naa kon alxuraan ji ngay romb yaa xam xam nga ko wala xamoo ko li ci nekk lépp danañ la laaj loo ci tontu yow loo ci tontu dañ la ko laaj loolu nag kon kenn ku ne war nga waajal sa tontu euh, xol boobu waroo ko jëfandikoo ci lu dul di ca fas lu dul loo xam ne ak jaamu yàlla la. Selal diina la fek ci sa xol lepp lo xamne lu suñu borom tabaraku taala beggul la gannaaw xol nak lu ciy duggu ci nopp lay jaare wala ci gis motax nga wara ar sa dégg wara ar sa gis ndax xol lu ciy dugg rek fofu lay jaare ben nga ne dama ko dégg wala nga ne dama ko gis dal di koy fas wala dal di koy gëm ba ca dess moy pëyum doom adam muy fi muy wute borom bi neena ngeen ko sam wala siina hum li furujihim xaafizuun suñu borom am na lu mu leen ca daganal mooy dencante dencante bu dee góor soxnaam dagan na ko bu dee jigéen itam borom këram dagan na ko waaye lu génn loola nag suñu borom leen fa man ibtaxa waraa zalik kuy wut bànneex ci lu génn soxna wala borom kër fa ulaayka humul aadoon nee na ñooñ ñooy yi nga xam ne ñoo dëng ñooñ ñooy yi nga xam ne ñoo wàcc yoon bokk na ci lii gën a matal nag nit ki sàmm boppam ci wet googu mu sori lépp loo xam ne lu koy dugal ci lu xaram la moo xam ab xool la moo xam ab jonjoo la moo xam ab jaxasoo la lu mu mën a doon lu ko mën a xëcc ba dugal ko ci lu xaram rek mu teel a sori loola moo tax gis nga borom bi bi muy tere njaaloo def ne wala taqrabu zina néewul bu leen njaaloo waaye def ne bu leen ko jege bu leen ko jege bu leen def lépp loo xam ne lu ca mën a yóbboo la mbokki jullit yi war na ci bépp jullit mu sàmm ay cëram ndax kat cër yi suñu borom tabaraka taala dañu ko defal defal la tawfiq nga mëna dégg am na ñum xañu dégg defal la tawfiq ngay gis am na ñum xañu ak gis defal la tawfiq nga mëna wah, wax am na xañ mëna wax defal la tawfiq nga am xel muy ragné am na ñu ñakum xel nga nité tuñu xamé tuñu lu baax ak safan ba yoyep yalla defal la ko yow kon nak war nga ko jariño ca namu gëna maté borom bi kat ba muy wax ne muy dëkkal jahannama daf ne wala qad zar'ana li jahannama kaseeran min al jinn wal ins daxalan lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum azanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adal ulaika humul ghafilun neena ñu bari seen waccu way ëlëk jahannama lay doon ci nit ñi ak jinne yi lu ko waral mooy xol bi mu leen joxoon ak xel mi dañ koo jëfandikoowul ba xàmmee luy dëgg lu ñu fekk rek wala lu ñu dégg nit ñi wax ko wala mu neex ci ñoom rek ñu topp loolu seeni bët itam duñ ci xool ba ràññee luy dëgg ak lu du dëgg seeni nopp itam noonu seeni bët itam noonu moo tax mu ne ñooñu day ñoo bàyyi bay ñooyam wala sax bàyyi bay ñoo leen tànne ndax ñoom dañoo amul loolu kon cër yépp lañ war a sàmm waaye yii ñu tudd fii muy dégg bi ak gis bi ak làmmiñ bi ak xol bi ak pay bi yooyu ñooy cosaanu ñooy ballukaayu yépp yoo xam ne ay mooy yàlla la yépp foofu lay jaar ñu ngi ñaan suñu borom tabaraka wa taala mu musallu ci suñu ayu bopp ak suñu ñaawtee fi jëf wa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain